ñaar nit ki war na sant yàlla yàgg na dund julli lii nag bu xewee aussi xeer rek moo koy motal euh, maa ngi nuyu ñépp maa ngi gërëm ñëpp tey jom ak ngoloj de voilà le chef de quartier de jom yàlla ak yonante di gërëm waa jom lu ñu yelloo la seen ak ak yëleef la bon dama leen di solliciter di leen di waxal bu lii passé yi ñu am benn nit moo ko dinaa dem foofu seet leen walla ma yónni foofu ñu wax ma benn moo ci des ñun tamit suñu amee suñu ñaar dërëm walla suñu benn kilo ceeb mënuñu kom président mais dinañ ko joxe di gërëm leen ñu xam def nañu liggéey bu amul salte def nañu liggéey amul benn problème amul siki sàkk parce que gis na doo gis kuy coow fi doo gis ku jógee ci dëkk bi ñëw ñu ne man nangam nangam bon kilifa day mot kilifa day jub kilifa day xam yàlla moo ko jox loolu mais génnoo kenn. yàlla may na ma aussi du bàkku man keroog mbir mi bu mu bu mu amee arrondissement Ngooñ waxuma département man maa génnee quatre cent mille nañu jënd matériel ñu joxe ko benn ma sollicité sibasoor ci wàllu sécurité neuf gendarme ñu ngi fi ay ASP yi ñu ngi fi du masque du loo xam ne lii mun nga protéger sa nit sama commune mu ngi fi demal garage demal ci école yi nga dem case de santé amul li ma fi defut pour défendre sama population bon yooyu motuwaay yooyu am nañu looloo tax Sibassor problème am bariwut surtout boo demee ci seen dëkk yooyu ñooñu lu dul lu xew fii ñu ñëw fi ñoom ku ci mu ngi def mu ngi toog këram bon gërëm ñëpp sant yàlla rek ci suba ba léegi maa ngi fi mais constaté naa ne amul benn embouteillage euh, loolu nag dinaa ci gërëm président de la république Macky parce que su ko ne mënoon na koo def te kenn du wax ñu ngi doon dund bien avant lii di am mais yërëm population am moo tax mu jéem lu mu mun ak lu mu munul pour satisfaire ñu su ma jógee ci Macky Sall dinaa gërëm suñ monsieur le maire parce que quel que soit alpha maire bi moom li mu war a def mu ngi koy def kenn dajalewul ñëpp nag ñëpp mënuñ laa bëgg mais moom bi ma bi affaire bi amee ba léegi du du soo du omo du madaar daf koy indi ci dëkk yi jàkka yi di ko joxe donc commencé wul ci ci affaire bi donc ci loolu ñu ngi ko ciy gërëm bu baax yow témoin nga gis nga ne fii am am na organisation gisoo fi benn càmbal cambal gisoo fi kenn ku xuloo gisoo fi kenn ku ñëw naan jotuma nangam nangam donc loolu rek jar na tax ñun ñu gërëm ko te njiit moom bala nga koy mun a ne nga doylu te moom ko doylu la su fekkoon ne saaku ceeb yi ñu ngi kërëm kenn du joxe fii respect waaye soxlawu ko mu ngi koy joxe normalement alors ñu ngi sant di gërëm di gërëm nag suñu population dëkk parce que Covid bii bi mu amee ba léegi kenn du dem fenn à plus forte raison nga xam ne kenn amatul jot ñu ngi ci tool yi di béy ñun ay béykat lañu ku ñu dimbale nag ñu jël. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla it di sant euh, monsieur le maire di sant suñu chef de village. ndax lépp loo xamante ne muy ba feebar bi commencé ba léegi ñàkk ñu dara yit di gërëm nag Abdou ndax fu ñu mën a toll rek moom mu ñuy gestu di laajte di président nag mënuñu ko fay dañ ko bàyyi ak yàlla yal na ko yàlla jàppale ba kanam a kanam ndax lii mënoon na koo téye ci loxoom def jox ña ko neex waaye defu ko dafa ñëw mu jox ko ñi nga xamante ne ñëpp a ko war a am rek ku ci war a am rek danga ci am bu so